ay ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñi nga amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkuwaat ak yéen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci réew mi rek mbokk yi ni leen ko toppal waaye rawatina tey jëmm ji nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool nga xam ne kenn dootu ko présenté bu ñu waxee muy Serigne Moussa Fall mu indi Serigne Mabeye Fall yaakaar naa ne ku miin fekke TV miin ko ak moom suñuy jataay ak moom miin ko suñuy jëflante ak moom muy xam nekk nit koo xam te ne wàlliwu yàlla la maam Cheikh Ibrahima Fall ay sama maam rek doy na ndam ci réew mi di sëtub sëriñ Mabey Fall mu Cheikh Ibrahima Fall doon sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne daa doon li mu doon donn ko muy ndono ne la ku xam Cheikh Ibra xam ko ci baatin ku xam Cheikh Ibra xam ko diggante Ndande Fall ak Kébémer nga xam ne jaayante la góor yàlla dëgg dëgg dëgg mooy Cheikh Ibra tey bu ñu jàkkaarloo ab sëtam muy ñaan ci yàlla di wax ci yàlla yaakaar naa ne xel yëpp war naa mën a dal xam ne kat dëgg dëgg Cheikh Ibra wala dëgg dëgg Cheikh Ibra mooy gëm ak lu wér sëriñ bi sëriñ Moussa maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw euh, Makane maa ngi lay fay di la delloo nuyo bi di nuyu sa mbokk internet yëpp ku nekk fa nga toog maa ngi lay jox loxo naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah di ñaan sëñ Xaadim Fall indi sëñ Moussa Mbacke Fall suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di ñaan sëñ Muntaxa suñ borom bàyyi ko fi yàggal ko fi lool te mu ànd di ñaan suñu xalifa ki nga xamante ni maanaam amuñu kenn ko dul moom muy sëñ Modou Mende Fall suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba liggéey gii mu bëgg liggéeyal Cheikh Ibra ci sëñ Tuubaa mu def ko mbokku taalibe yëpp mottali ko ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kon nag maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu mbokk internet yëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah bu ñu ko waxee tey ñu war a waxtaanee dëgg dëgg xam-xam dinañ ci waxtaan dinañ ci waxtaan ci làmb dinañ ci waxtaan waaye ci wàllu seet ak li saxaar xam nga mooy seet seet mooy li nga xamante ni nit ki day nëbbu ci moom ku mu ko waxut doo ko xam léegi nag dana ñëw ci yow ni la sëñ Moussa damaa bëgg nga xoole ma sama mbir su ko defee maanaam soo ko seetalee mbiram di nga ko wax loo xam ne ci jëmmi boppam moom day xam ne liikat kat waxuma ko woon kenn kon ni sëriñ bi def ba xam ko kon kii borom xam-xam la seet day doon loo xam ne day nëbbu ci nit loo xam ne kenn xamu ko moo xam tawat moo xam ñu liggéey ko moo xam lu mënti doon day doon loo xam ne bis boo ko waxee nit moom ci jëmmi boppam danaan kii xanaa daf maa toppoon ay ati at man nag saa boroom def na ni li may seetee moom xam nga ko su ma la xoolalee li ma lay wax su ma la ko waxee maanaam jaratut ngay dem ci fenn te xam ne maanaam fii laa doon wër am naa ko te yàlla def na ne seet moom képp ku ma seetal ba bàyyi la da ngay taf sa gémmiñ mm-hmm. ndax da nga naan sëñ bi kat daa mel ni yàlla suñu borom da ko won samay mbir bu baax a baax mm-hmm. yàlla def na ne nag seet moom dafa doon loo xam ni nit ki balaa nga koo ñaanal foo jaar nga seetal ko mm-hmm. ba xam lan mooy gàllankoor yi ak yan sarax laa war a def ak yan mbir laa war a doxal ba yàlla def mu ubbeeku loolu nag mooy seet waaw sarax wàllu sarax dafa doon ñoo xam ni dafa am ñoo xam ni seen i biddéew wala seen i tabiha mooy comme ñi nga xamante ni jànguñu dama koy wax ci wàllu olof muy ndox suuf ngelaw ak ñi nga xamante ni maanaam safara lañ ñooñu mooy wàllu sarax léegi nag ñi nga xamante ni maam yàlla def na ni wàllu ndox lañ xam nga mënoo leen saraxe loolu dul ndox am na ñoo xam ni seen tabixa wàllu naar yu la mooy safara ñooñu mënoo leen sarax loolu dul lu tàng léegi nag yooyu day da koy xam boo xam nit ki seetal ko ba gis saraxam saraxam nag saraxu nit ñaar la mooy lu koy ubbi mbaa lu koy tëj léegi nag ki la koy defal day fekk mu xam ci wàllu xam-xam dara xel mun na jom wala asaraar mu xam ci tuuti su ko defee dana la wax sarax yoo xam ne bis boo ko defee maam nekkee da ngaa bëgg ubbeeku da nga ubbeeku bu nekkoon nekk ci yow suñu la ko teggil loolu nag sarax moo doon loo xam ne moom bis ko defee say mbir daa war a ubbeeku wala bu nekkee da ngaa nekk ci gàllankoor gàllankoor yooyu daa war a dañ sarax nag moo doon lu doy waar loo xam ne moom mën ngaa bañ a ñaanal nit ki su defee ay xam rek mbiram mi war naa mën a dox loolooy sarax ne tey dañuy waxtaan ci xam-xam luy xam waaw xam-xam mooy li nga xamante ni nëbb na waaye soriwul loo xam ni maanaam mën ngaa xëy suba chaque jour du ko romb te bokkut ak liñ ko foog ndax xam-xam nekkul sol garaam bu boole leen xam-xam lu yomb la waaye nag lu nëbb lu làqu dong la loolay xam-xam misaal tey comme wàllu làmb lañ jëm suñ bis boo ma ci posé question dinaa la wax tey ci wàllu xam-xam ci wàllu làmb mm-hmm. loo xam ni soo ko déggee fii doo nga koy déggee doo ko dégg feneen mm-hmm. ci wàllu xam-xam ci wàllu làmb waaw xam nga xam-xam ci wàllu làmb tey misaal nit ki mën naa ñëw ne la damay jëflanteeg diw mm-hmm. nga laaj ko turam mu jox la ko comme tey misaal ñu ni Modou Lo nga xool Modou mu doon wàllu tabian mu doon wàllu safara kooku tey bu nekkee tey da nga koy liggéey da jéema jéem xool li nga koy liggéeyal ni mhm. nga koy liggéeyal mooy mën ngaa dugg tey fii yàlla di wax ci wàllu yéefar yi mhm. ñi nga xamante ni gëmuñu ndax xam nga làmb moom baaxut mhm. biiru yéefar la su la neexee nga jël fa baytal la si kafara soo ko tëggee xaati musallas xasaal yi soo paree nag doo génnee doo génnee rawxaan foofu ndax rawxaan lu baax lay def xuddaam nga koy génneel léegi xuddaam googu am na njiitam bu nekk ci biir njiit googu noonu ngay woo yónni kili yónni ko ci kilifaam kilifa googu noonu soo ko yónnee li nga bëgg ci nit ki da koy def mm-hmm. loolu nag mooy wàllu li nga xamante ne mooy xam-xam bi nga xamante ne mooy xam-xamu asaraar mm-hmm. ci wàllu xaatim mm-hmm. léegi nag xaatim nag bari nay façon am na xaatim musallas am na mu rabon am na omar xaysi léegi nag yow yaa xool li nga koy liggéeyee nga defee ko noonu bu nekkee nit ki tamit dafa ñëw ni la mankat diw daf maa tëkku ndax nee na su ma jàppee dana ma duma wala dana def nangam su da ngay jël aaya bi ñu naan wa isa batasun batasun jabaari na su boobaa loolu mën nga koo liggéey ko da nga koy dugal ci armeel ko fu garaaw mm-hmm. foo xam ne maam mënuñu ko wax ci biir internet mm-hmm. su ko defee loolu mën nga cee tëgg tamit xaatim génnee tamit xuddaam gi mm-hmm. ndax diggante xuddaam ak rawxaan bokkul nag xuddaam mooy lu yàq rawxaan mooy liy defar mhm. te diggante defar mhm. lu baax ak lu bon bokkut mhm. ndax wàllu làmb nga wàllu làmb lu bon la kon amut yàlla amul yonent foofu wàllu yàq la foofu nag xuddaam nga fay utiliser doo fa utiliser rawxaan rawxaan soo ko utiliser mooy lu baax waaw loolu nag mooy wàllu xam-xam ci wàllu làmb loo xam ni mën naa ko baaxee ñenn ñi waaw làmb nag dafa doy ndax am na liggéey yoo xam ne da koy gas suul am na yoo xam ne da nga koy suul ci am na yoo xam ne da koy def ci néew waaw waaw néew barki ay liggéey waaw da nga koy def ci néew. loolu def ci néew pour lan la mu xam. waaw loolu maam day tax néew néew bi comme ni mu mel ni yedd daaral mm-hmm. du def dara. Mm-hmm. mën ngaa gis néew bu jóg. néew daa mënal boppam dara noonu lay mel. foofu la ñuy jaare xuus daal di dugg ci combat Siteu ak ki nga xam ne moom moo di Modou loo coow li bari trop sëriñ bi am na ci ñenn sëriñ ci génn ne Modou Lo yi def ne Siteu yi daan coow li bari trop trop nga ne am nga loo ma ci bëgg a leeral muy combat Siteu ak Modou Lo loo ma mën a wax ci combat bi li ma la ciy leeral mooy trois jours su jotee man moom la ma defoon ca Balla Gaye ak Tapha Tine danaa ko defaat waaye làmb ji nii ma lay wax ni man su ma doon ngemb Siteu mm-hmm. ngembam lu ñuul lool dama koy tojtal mm-hmm. ndax li tax ma koy tojtal mooy dafa am ci ñi nga xamante ne ay sëriñu moot Lo lañ mm-hmm. dañuy liggéey ci ngemb li mm-hmm. te ngemb li bi bu ko indee ci làmb ji noonu te tojtalu ko mën naa metti ci moom lool. Mm-hmm. xam ba xam dégg nga ma nag. beneen ba ci topp tam su ma doon ñëw maanaam fu ñu may jaarloo fa lay jaar. waaw moom Siteu suñ ne ma jaaral fii fa lay jaar. waaw ndax li waral lool waaw déedéet maanaam xam nga nit par exemple dinañ la tegtal ni la bul jaar fenn. foofu baaxul fekk fi ñu lay jaarloo. moo gën ci yow fi nga bëgg a jaar. ndax ab esaat mën na toll foo xam ne sëriñ yi nga xamante ne ñooy indi Modou Lo. mën nañoo jiitu Siteu ci esaat ba. def fa lañ fay def. waaye yow su boobaa soo ñëwee da nga koy tojtal. man tamit suma ko doon ngemb dinaa ne ko sa ngemb li def ci nàngam ak nàngam soo ñëwee. fii nga xamante ne moo féete côté géej waaye na nga fa taxawee. Mm-hmm. yaa waaw moom Siteu Ah. lu tax mu taxawee waaw ndax xam nga raw xaanu arène nationale bu nekkee da yor victoire di ko indaale. Mhm. daa am foo war a taxawee. Mhm. bu nekkee dangay ngay lijjanti victoire daa am foo war a taxawee. Mhm. te combat bi su desee quatre jours diggante Siteu ak Modou Lo Siteu maanaam da daa yor loo xam ni. ci jëmmi boppam. maanaam sëriñu Modou Lo yi su làmb ji desee quatre jours dañ koy yàq. Hmm? waaw dañ ciy liggéey bu baax nii may waxee ci ngemb Siteu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. déggu ma li wax de ci ngemb Siteu. sëriñu Modou Lo yi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ngembam lu ñuul loolu moo war a indi. waaw bu nekkoon maay moom su ma ñëw dama koy tojtal. tojtal ngemb li waaw tojtal ngemb li def ci li ma ci war a def. Hmm. ñëw am fu ma war a taxee arène national hmm. man nag su ma ko doon conseil dama naan ko bu mu indi percal bu weex wala nangam. Hmm. di ci dox wala mu ciy kii. ndax loolu da koy yàq loolu gënu ci moom. moom si waaw. ñu gis bagage yu xonq yi bari ci moom ci signature bi am na ay sëriñ yoo xam dañ koo tëkk ne bagage yu yooyu noonu baaxul. waaw xam nga Modou Lo dafa doon nit koo xam ne maam dafa taxawee ci course mm-hmm. te bu nekkee nit ki dafa taxawee ci kurus nga bëgg euh, liggéey ak moom mm-hmm. da ngay jéem xool maanaam fa mu nekk nga fekk ji ko fa mm-hmm. waaye xam-xamu fitis wala zulmaan yu war na mën naa bañ a mën ci moom dara te leer ak nuuraan yi mooy leer ak li nga xamante ni mooy zulmaan yu mënuñoo ànd leer fu mu fekk zulmaan yu da koy duma leer mooy lu baax nuuraan ya mooy leer gu baax léegi nag zulmaan yu mooy lu mooy lu ñuul mhm. xam nga lu ñuul baaxut mhm. léegi nag Modou Lo dafa taxaw nag ci lu leer Siteu mhm. taxaw ci lu ñuul kon soo xoolee chaque jour ki taxaw ci lu leer mooy ëpp doole ki taxaw ci lu ñuul lu lu xonk loolu nag maanaam bi mu ñëw signature yor na ko waaye man bu nekkoon maay moom lu ñuul li dina ci bari ba mu gën lu xonk li moom Siteu waaw moom Siteu am lu ñuul na ciy bari ndax làmb ji daa am lu muy laaj te beneen ba ca topp maa ngi dégg ñu naan dañoo def nag xaw ma saraxe ko nag bu ñuul ak yooyu loolu de bu nekkee am na lu baax ci Siteu la xaw man ne ba xam am na ndax dara leeru ma ci. Hmm? waaw waaye Siteu lu ñuul moom day baax ci moom. wax day leer ne bu fekkee dañoo def saraxu nag bu ñuul lu baax ci Siteu la. bu nekkee am na lu baax ci Siteu la man maa ko wax bu nekkee am na laa wax ndax fekkee moo fi ñu koy defee ak damaa dégg rek ñu wax ko hmm. waaye bu nekkee am na lu baax ci Siteu la ndax lu ñuul daa bokk ci Siteu. Hmm. te lu ñuul lu Siteu di yor maanaam day baax ci moom. waaw man nag faraluma si te faraluma Modou Lo damay ñaan ndax ñoom ñaan ñëpp ku nekk déggante naa ak ñoom. ci waa seen i camp boobu. ñu ngi waxtaan dañoo déggoogul. te la ma la waxoon laay wax waaw déedéet ñu waxtaan nag. Mhm. waaye la la waxoon laa lay mhm. làmb ji moom yàlla dafa def ni dama cee xam kii daan. Mhm. ak fi muy daanee. ak ni muy daanee. xam liy tojtal làmb ji. ba ki ñu jekku suñu borom def nga am ci hmm? da nga xam kii fi muy daanee. ak ni muy daanee. xam tamit maanaam lan mooy tottal làmba ji. Mhm. ba ki ñu jékku mën a am ndam. Mhm. kii daan fi muy daan. loolu moom su desee ñetti fan na ma defoon laay ñëwaat fii ma waxaat la kii daan fi muy daan yi comme na ma defoon ci combat Balla Gaye mhm. waaw. combat bi xalaat nga mu gaaw. combat bi moom gëm naa mu gaaw waaye nag nekkul combat boo xam ne arbitre day siffler rek mu jeex. lu mu bon bon moom dana dana diire ay minit daal. doo mën na ci am. yaakaaraguma ko ndax foofu moom dama fay def code. nga ñëwaat ñetteelu fan bi ma wax la. wax la ardo bu nekkee dana ci am wax la saaku ya wax la lépp daal ci làmb ji wax la saaku ya ah saaku ya mooy lan waaw wax la ah, daal lépp bàyyi bëgg wax de wax la lépp loo xam ne daal ci làmb ji gis naa ko ci daal loo xam ne fi ma war a jeexee incha allah rabbi nga xool ñoom ñaar ñu summeeku nga xool seen i sotin nga xool ci kenn koo xam te ni dangay gis koo xam te ni gàllaaj daf ko ci jàpp wala ñoom ñaar ñëpp kenn gàllaaj jàpp ko genn waaw jamono ji may wax yow nag moom gisaguma gàllaaj jàpp kenn leen daal laa ci gis mooy Modou Lo moom ci jëmi boppam na defaraat xoolaat bu baax ndax xeex gi daa bëri ci côté te chaque jour dama ko wax xeex gi daa bëri ci côté yi. waaw moom Modou loo mhm. su ma ko doon ngemb tamit mu ñëw dama naan ko na nga jaaree fii. Mhm. na nga moytu lii na nga def lii na nga def lii. ba ci Modou Lo même bu nekkee ngembam lu zone loolu da koy indi sax dinaa ne ko ngemb li na nga ko indi waaye na nga ci def nangam. Mhm. dégg nga mu baax waaw dama naan ko ngembali na nga ko indi waaye na ci def nangam mm-hmm. te tamit bis bu arbitre di siffler bul taxawee place bi na nga taxawee nii mm-hmm. ndax nii moo gën ci yow waaw moom mut Lo mm-hmm. waaw am na sarax yoo xam ne tam da ko koy digal mu def ko waaw baax ci moom loolu waaw na sarax yoo xam te ne koy digal mu des ko. waaw ndax dina baax ci moom waaw dina baax ci moom loolu. moom jamono jii nii. waaw waaye nag leen naa la ko de fii laa la ko waxee ku mu neex nga dagg. géejawaay roi des arènes dina fi duggaat. ah waaw dégguma sëñ bi nga ne ma ni ku mu neex na nga dagg vidéo bi téye ko waay roi des arènes dina fi duggaat maa du Balla Gaye ah moom daal dama ci def kot waaye roi des arènes dana duggaat géejawaay waay Balla Gaye Balla Gaye waaw dana doonaat roi des arènes sëñ bi yaa ngi lancé defi de wax lu kenn mës ta kenn ñemee ta wax lii man maa ko wax nga ne Balla Gaye dana doonaat roi des arènes du yàgg dara Balla Gaye dana doonaat roi des arènes dégguma de man sëñ Moussa Fall man maa ni Balla dana doon roi des arènes gis nga ngembam lu ñuul loolu ñu ko ngemboon mu ñëw contre Tapha mhm. maanaam su xamaatee beneen ban morceau la ci war a tegaat mhm. ku naqaree daan ci arène national gii lay doon moom Balla Gaye waaw hmm? lii moom mën naa ko wax euh, kii nu mu tuddati am na benn joueur boo xam ne day football équipe nationale Sénégal naan ko Pathé Ciss xam nga daa mel ne déggatoo ko sax daa mel ne lu fay. Mhm. maanaam liñ ko def xam naa ko te bis ma wooyee dinaa ko wax. partie six dinaa ko wax liñ ko def ak liñ ko fayee ci sóoratul yaasin lañ ko def. moom su ko defee su góorgóorloo yàlla mën na koo dimbali su góorgóor dina dem ba équipe nationale Sénégal dafay ñàkk palaasam. Hmm? Hmm. di man maa la ko wax. Ousmane ko Bougane Gueye Dany loo ci gis. Ousmane Bougane Bougane Gueye Dany su ma ko doon wax dama naan ko na na na dal. te jéem a xool maanaam beneen yoon bu muy jaar ndax fii mu jëm baaxut ci moom hmm? waaw fii mu jëm da koy wàññil ay nit waaye du ko yokkal hmm. waa Pastef li ma leen wax suñu mënee génnee ñetti gileem yu weex ñu génnee ko ci élection yi ñu jëm moo hmm. gën ci ñoom waa waaw Pastef waaw ñetti gileem weex moo gën ci ñoom suñ ma woowee nag ma wax leen fi ñu koy def ak fi ñu ko war a defee ndax c'est Dakar juróomi illaam waaw wala déet kay juróomi ili maam ñetti ili am na lu fa war a def ñoom. waaw suñ ko defee suñ borom dana leen yëkkatiwaat ca kaw. Mm-hmm. te fii ñu jëm nii muy la 17 xaw ma la di set 17 waaw. Mm-hmm. suñ borom dana def ni liñ bëgg ci majorité danañ ko am. Mm-hmm. waaye lii ma la moom na ci bàyyi xel bu baax. diggante Modou Lo ak Siteu. xam naa ki daan te làmb su desee ñetti fan dinaa génn ne la diw mooy daan diw. te su koy daan ci fii la koy daanee ak fii. su amee ardo dinaan dem waaw loolu moom mën naa la ko wax. Mhm. ku ñëw ci man nag ma ñaanal la ku ñëwut tamit yàlla la mu xam la yàlla xam doy na. Mhm. ndax man ma kenn mhm. ku ñëw ci man baax na ku ñëwut demal xool keneen. man doomu du ma waaw waaye nag lu wér laa yor man. waaw lu wér barki Cheikh Rafal mas naa la wax ci làmb loo tegut sa bët. boo ko laa kii bi ma la dañuy dóor mu daanoo yaa ngi koy fàttaliku. Balla Gaye Hmm? Mm-hmm. ak yeneen làmb yi. Mm-hmm. Boy Niang Modou Lo. Mm-hmm. waaw yooyu yëpp ngi fi ku ko tapé di nga ko gis. waaw lamb ji nag niñ ko foogee du amee noonu de. dama foog lamb ji dañuy mu jeex. Mm, mm. yomb du de. ku la ko yombal ku nekk da laa nax lamb jooj du yomb. waaw. looy tàggu. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di ku nekk fa nga nekk rek. maa ngi lay jox loxo naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf